Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat baax fi ñu leen daan nuyoo tey nag ñu ñëw fii ci arène Adrien sengoor fekk fi nga xam ne moom mooy Pa Ngor Sémou ñu ànd ak mbingaan xam nga ne làmb ubbi na waaye dafa am am nu mu umbee waaye loo ci mënti dégg yàgg maar laa àndal ak Ndey Kumba Fall ak ki nga xam ne moom mooy Momo ak Mansour waaye nuyu équipe Leewtoo yëpp nuyu képp ku ñu suivre ci Leewtoo TV yàgg maar ñu ànd dem ci biir fekki paa bi ba xam lan la ñuy waxtaanee ci làmb tey. mbokk yi Leewtoo comme ni ñu ko waxee léegi rek euh, saison bi ubbi na dootuñ ko wax kenn octobre la saison di ubbi ñu ñëw tey ba ñu ngi ci fin octobre bareegul lamb yi fi xew dafa mel ni benn lamb simple la ñu defagum arène Adrien Senghor beneen bi ñu def ko arène nationale yaakaar naa noonu la Pa Ngosemu Diouf ñu toog tey ak euh, président Pa Ngosemu Diouf ak ki nga xam ne moom mooy Madou Mbengue di euh, ancien lutteur waaye tam di promoteur. Euh, Pangor ñu ngi lay nuyu. béréb ñu ngi lay fay. di am mbégte loolu bi ma jëloon yow fii ci Arène Adrien bu Grand Yoff ñu ngi ko waxee rek noonu la. section bi ubbi na depuis le premier toog di xaar licence mbër yi ba taa yi ma dem CNG ñëw mën ngaa tëgg ndax licence yi daanaka pare na ma toog ba alxamis bi passé ma dem. ñoom saas yi tey la ñu ñëw waaye bu soobee yàlla daañu liggéey samedi ak dimanche ak aljuma ji ngay toog nii moo taxoon nga di xaw a sakkan waaw loolu laa bëggoon a wax premier sama premier wax bi ma la nuyoo sant la gërëm la Leewtoo moo yóbbu làmb fu ne su ne ko woon Leewtoo làmb di sori su ngeen yàggoon a nekk fii kon làmb dina sori daañu ko dégg fu sori mais yàlla def na ko ñëw ngeen yàlla ñu yàlla dimbale yàlla ñu yàlla jàppale jërëjëf Birame. Euh, Amina ci topp euh, Pango Samou ñu ubbi saison bi ñaari lamb simple amandoo naroon naa daje sax ci même fief bi ñu waxoon bi Adrien Senghor bii gaal gi mu jegante lool. waa loolu euh, wax nañ ci mais comme ki nga xam ne moo moo moo waroon si gaal gi. yàlla def dañuy jàpp suñu bés bi pare mu ñëw fii ñu jox ko ñaari bés moo war a tege premier janvier ak cinq janvier ñu yëgal ko nag dañuy dañuy tëggale vingt sept xam ban xalaat la am ba jàppale vingt set ne day teg ñun nag waxuñu ko dara parce que jarul maayoo jarul xiiro kenn ku ne muuram lay jël. moo tax waxuma ko dara bi mu jëppee bés ba léegi ton waxuma ko dara dama ne parce que daf ma ne maay papam waaye bu jàppoon ne maay papam kon def naa lu def loolu mais nag duma ko wax dara waaw loolu laa bëggoon a wax. léegi ak tax ndax est-ce que du problème bu daaw jéeg bi moom mooy répercuté si bi nii ba ren mu peinture bi fi amoon da nga leen leen ma ma jox leen date est-ce que du coow boobu moo leen topp tey ba ren. ma ne moom na fii. moom ma doon ma euh, jox leen ma date ma peinture leen ñu jox ko ñetti date mënatul ñeenti date bu fekkoon ne mënoon na peinture kon ñetti date yi bu amoon mu ko parce que nit ñi dañuy soxla woon làmb ji suñ ko joxoon ñetti date daaw daaw jag ci boppam teg na cinq licence euh, kii sias ah euh, mënoon na peinture foofu mënoon na peinture foofu man day jàppal ma date da jàpp dara jàppal ko dara de dégg naa ñu wax di mais ma dégg benn wax bu jàllewul ak man ne lii moo tax ma def lii man duma ko wax dara waaw loolu la. Euh, kii bo loolu bu weesoo dimanche bii di ñëw dañuy wax le 3 ndax mu sori ba léegi même chose la ñu yaak naroon am le 27 moo nar a amaat fii Adrien Senghor 1 million gaal gi 2 millions 500 muy diggante ba léegi Jax ak Adrien Senghor. waa jàkk defe naa xel bi daal ci xeex la nekk waa nag warul xeex ak moom ndax fii mooy cosaanu làmb gaal gi dañ koy àbb rek mais fii mooy cosaanu làmb jàkk bu nee bee kontar cosaan bi nag ah man de xamatuma dara xamatuma ci dara na cosaan bi bu ñu tëggee cosaan bi mu tëgg fale ñu bàyyi kook yàlla rek bàyyi kook yàlla mais yaa ngi wax léegi si xeex la nekk lan moo indi xeex boobu waa li comme ni nga wax si xeex xelam si xeex la nekk lan moo indi xeex boobu noonu est-ce que tey jii su gisee jas di dem tëgg gaal gi est-ce que tey nee nga jàpp na le premier ak le 5 janvier est-ce que tey jii su ñëwee est-ce que xatalu leen ko moo tax muy dem gaal gi lan moo si xew carrément parce que yow soo jàpp ni xeex xeex si xeex la nekk kon am na lu tax lan moo indi xeex boobu. man li ma li ma xalaat ne moo indi xeex boobu xam nga ku mu wax euh, bugg fallu jàqama day def xel bu joxee kii cent mille jox kii cent mille jox kii cent mille kenn ku ne ñëwee dañuy wut date ñu ne nag ko amul visa promoteur du am date mu am ñaar visa promoteur ñetteel bi bor mu amul visa promoteur ñu ne ko doo am date xëj na loola meer mooy bugg fallu fallu bugg na mbooloo moom la moom la jox cent mille ne demal wutal ma beneen date ñu ñëw leen ko anu sa visa promoteur ko amul ñu ne ñu amul mooy visa promoteur ñu ne ko ku amul visa promoteur mënoo jël date xanaa loolu la mer. mais fekkee nañ fi bokk man yi mën a ñëw yëpp bu ñu doon joxee dat jax du teew teewul yéen ngeen jàppal ko dat te am na ay propriétaires yu ko fi yu ko fi jiitu tey la moo tax changement boobu am kon am na lu xew si biir boo xam ne xëy na yow bëggoo ko wax moom bëggu ko wax. Ah, loo gis day suppeeku loo gis day mag ñun daan joxe ñun daan joxe fokk ñu seet bu ñu amoon problème daaw ren fokk ñu arrangé problème xam fu mu jógee ñu bàyyi ñu dindi ko loo xam ne am na cinq det daaw te dañ naan kenn du am fii ñaari det maa lu mu a ngi nii mën ñu am ñaari det mu bëggoon am ñeenti det fii ci bii bii bii arène bi ñu ne ko nag loolu mënul am loolu mënul am kon mu mel ni am na lu dëgër ci seen diggante. ah man de loolu laa jàpp mënul am ñetti date loolu laa jàpp ne loolu la mer waaw. est-ce que tey nii yoonu tey ngeen toog waxtaan comme que mbir bi yàlla ko bokk ku nekk lu simple lay def est-ce que tey jii passé mu waru mun a moo woo wala bokk waa Adrien woo jag si ngeen toog ngeen waxtaan ndax démb neexoon nag bu kàttee mu bugg ñaaw. man man maay baayam bu bëggoon lu rafet na fekk si baayam waxtaan ak moom ñu daan waxtaan ak moom. pare bu ñëwee bu ñëwee toog ma wax